ca ma ngoog day daal di euh, am solo trop macha allah comme noonu ñu leen ko waxee ci li nga xam ni moo di euh, yóbbal bi ci rajo Baol Média FM 97 point 1. fii ci Mbàkke tabla caa bi xàll bi ma dëkk bu sell ba di tubaa seen émission Baol Matinale euh, rubrique bi nga xam ni moo soxal wàllum yóbbal bi ku ci nekk rek mën ngaa fëkk sa dikk ak sa kaye. fas yéene jël note wala sax nga jël seen enregistrement su ko defee comme ñoo ngi doon waxtaan ci sëy yi nga xam ni léeg-léeg day faral di paccaxoo di tas waaye damay faral di wax ni ñetti xunóot a ngi nii ñetti xunuut yoo xam ni da nga koy def ci guro gi nga xam ni moom la ñuy fasee sëy bi ci kàttanu yàlla su borom bépp sëy boo xam ni fasee nga ko rek yàlla su borom mën naa def sutura ca boobu la sëy la leen tàqale yàlla na yeex faatu rek moo leen mën a euh, tàqale ca boobu la sëy kon mbokk mi ni nañ koy tax defee guro gi nga xam ne moom la war a yóbbu ci jàkka ja ngir fasee ko sëy ba guro ga ngay jël nga tiim ko nga jàng ñetti xunóot moo xam nga tiifle ko ci ndox raxasee ko guro ga ba mu fendi nga yóbbu ko ñu fase ko sëy bi boobu la sëy ci kàttanu yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñetti fan yi bàmmeel dong moo koy dagg moo tax mu dagg waaye nit du dox ci diggante ba nit tamit mënta dugg ci diggante ba ba nga xam ne maanaam daf koy daal di yàq mu jur leneen jafe su ko defee tamit ma ñëw ci beneen boo xam ni doomu aadama yi soxla nañu dundu gu teey dundu gu teey ci sa biir kër dund gu teey ci sa biir kër ak dund gu ñoŋ ci sa biir kër mbokk leen na ngi ni tamit mag ñi di ko faral di wax naan denc ruu ndax ñu bari dañ ma koy laaj waaye dinaa leen ko baaxiwaat boo ko defee ñu def ko ab yóbbal boolewaale ko ci ndax njaboot gi war nañ leen sàmm aar leen ba du ñu yàqu waaye tamit du ñu yàq tamit aussi mooy da ngay bind asama du ngay bind daal di ubbi siin si daal di koy bàyyi noonu waaye bu ko tëj ba màgg nga dugal ci mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoom nga soxla ñu tegu ci yoon ñu jub xocc tey nga denc leen foo xam ne yàq jublu fa comme ni ñu waxee nga ne alif dénk naa la laam dal ni laam dénk naa la miim daan ni miim dénk naa la dell daan ni dell dénk naa la siin daan ni siin dénk naa la mboolem njaboot gi ma jaboote ba dugal leen fii daal di tëj siin ja daal di ko tëjee allahumma salli ala sayyidina Muhammad daal di jël téere boobu nga lem ko ba mu jekk nag nga dugal ko ci benn butéel foo ko denc baax na si biir kër moo xam muy ci arwaal bi wala ci wala ci bi fu mu nekk ci gëgg rek alhamdulilah ndax wax nañ ni mbootum alquranul karim ci siin soosu la ko suñu borom di denc guddi gu nekk ci asamadu siin soos noonu ci la ko suñu borom di denc guddi gu nekk asamadu tamit ba tey mbokk yo mi nga xam ni da ngay julli saa boo sërmalee nga jël sa baaraamu sànq bind ci alif jël baaraam bi topp ca baaraam bu njëkk bi bind ci laam jël baaraam ñetteelu baaraam bind ca siin jël ñeenteelu baaraam bind ko miim jël juróomeel baaraam bind ca deel gi xam nga taqaloo nga boole ko dajale ko raxasoo ko loolu dina la suturaal tamit ba lii di ay loxo ak ay neeway loxo moom suñu borom dana la ci muccal la ca doon tamit loo am dina toog ci sa loxo loo am rek dina toog ci sa loxo ci kàttan yàlla suñu kon loolu moo nekk yóbbal bi ci Baol Médias FM 97 point 1 ak Moustapha Bassir ñu ngi jàngeen jëf jërë ngeen tan tan